kaas bu bu ma jógoon wax beneen public ñëw waxuma public ay activisme public hip hop dañu ñëw taxaw parce que dañuy xam rappeur kii rappeur la beneen public ñooy ñëw xeex bi ñuy def nii xeex buñ gëm la man mi toog nii di wax nii <laughs> jël nañ ma man jël nañ ma fi benn moment fii jël ma féetale ma Macky Sall Macky moom may corrompe man may saaga ndeyam suba ngoon xam nga nag Sénégal ñaar ñu am ñaari day ñaari duul ñu am mensonge patriotique ak mensonge républicain mensonge patriotique mooy ay patriote entre guillemets yu muy mën a fenn noonu la ñu wooyelee mensonge patriotique tout le monde manipule tout le monde au Sénégal papa yi di fenn xale yi di fenn jigéen yi góor yi di fenn moom suukar la ak xorom ñëpp koy ñam fen moom sa waay san fen boo toppee sénégalais moom waaw sénégalais yëpp ay fen ñu tuddul fen bariwul bu dee 17 millions million yëpp ay dañuy ko wax dama ne bu dee 17 millions 14 yëpp dañuy fen kenn ñi ci taxaw teg kaamil wala teg bible ne man du may fen 14 14 millions dañuy fen bu doon ku fen doo dugg àjjana kon Sénégal di un virgule un virgule un ñooy dugg àjjana ñu si safara lañ jëm fen rek lay def loolu c'est sénégalais c'est dans la dans l'ADN ça dépend situation kon donc y a des mensonges patriotiques y a des mensonges républicains patriotique mooy ñi ne ne ñoom nañoo ànd Sonko am na fen ñu fenkat yu tàng sax yu fa ne mais c'est des sénégalais quand même y a mooy ñu ànd ak Macky dañuy fen mensonge et manipulation <laughs> ça dépend rek bu leen arrangé wul ñu fenal la bu leen arrangé ñu ànd yow ci li nga wax tàccu la solo la caaya bu leen arrangé wul ñu <laughs> ñu fenal la sosal la xeex ba may xeex di ko xeex ba tollu fii ñu ne Macky Sall am mensonge patriotique yi génn non non dañ ko dañ ko man mi foog ni di kaas nii ba léegi de di wax ba léegi di kaas man di jiñoon nañ ma fi jiñ nañ ma fi ne dama recevoir ay millions <laughs> c'est des mensonges patriotiques nag c'était pas des mensonges républicains c'était des mensonges patriotiques ma ay patriotes ñoo ma doon fenal ay patriotes ñoo ma doon fenal man dama mujj sax réer ci prix yi am na ñu ne un milliard am na deux milliards am na deux cent cinquante millions mais ay patriotes ñoo ma doon fenal ñoo ma doon sosal <laughs> c'était des mensonges patriotiques c'était des c'était pas des mensonges républicains c'était des mensonges patriotiques des patriotes ñoo ma doon fenal toog fu ñu toog di day man mii kun man mii nekk fii tey di saaga nday Macky Sall di xëpp kaandi ko ci teg tambour pata di wax lu kenn sañ ko wax di publier lu kenn sañ te publier ñoom les les patriotes les mensonges on nañ ma fi dund naa ko man mii rek man mii <laughs> <laughs> am na ñu ma jox deux cent cinquante millions am na ñu jaar ci avion yi indil ma ko am ñu ñu def am na ñu fi def ay patriotes yu fi def ay film ay film Jacques Jean ay film Aminata Bachan ba indil ma fi deux cent cinquante millions man de xaw ma Macky Sall ñàkk na fayda Macky Sall jël deux cent cinquante millions jox ma may saaga ndayam nii di def sound di saaga ndayam di def live di saaga ndayam di def ne Macky Sall ab doomeram la imbécile xaj la ku ti mbaw la c'est pas un démocrate c'est un imbécile mais bu fi tegee troisième mandat nañ daxaar maamam léegi Macky Sall moom ah, wala ay nitam jël deux cent cinquante millions jox ma ko may may continuer di saaga ndayam nii moom te ñoom jëluñu ay preuve génne ne waaw kii kii kii d'accord nag ñun ñu jox nañ ko mu def ñu nangam c'était des mensonges patriotiques ay patriotes yu taxaw entre guillemets ñoo mu fi duulaloon loolu <laughs> dafa la defoon nañ ma fi Aminata Bachan wala Jackie Chan I don't know jël deux cent cinquante millions yi naaw ci air bi ñoo jox ma ko duuleel mu duulu tooy xap tooy xap <laughs> waaye mais man moom <laughs> maa ngi ci mbirum suñu borom subhaanahu sama xeex sa xeexu pour suñu boroom la xeexu dëgg la moo tax képp ku ci fenal di nga deg coono képp ku ci fenal ñu ci bari ñi ci génnoon def live duulal ma ñi ngi ci kaso bi yéen a ma leen ko nag mais ñi ngi ci kaso bi de seetlu leen de ñu fi defoon live quatre-vingt-dix-neuf pour cent finalement social ma ñi ngi ci kaso bi nii Macky Macky yóbbu na leen mel ni nattu parce que <laughs> nit bu nit bu nekk mi missionnaire u Allah subhanahu wa taala di xeex nga koy fenal xamoo lu muy def xamoo lu lu ko ci jublu nga kay fenal xoolal jalaal dal quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ma defaloon live yëpp fenal ma sosal ma ñu ngi ci kaso bi jamono ji pa caabi féete leen ginnaaw seen sëriñ boobu taxawoon fii ni moo duulal ma fenal ma ne man maa dem sax bay taal sama kër sama kër papa mu ngi ci tolof tolof kenn déggatu ko anamu yéen a ngi fàttali loolu <laughs> gars yi dañuy fàtte de man damay suivre action parce que man gëm naa ne ku ma tooñ yàlla fayul ma parce que Seydina Mohamed ku ma tooñ yàlla dina ma fayul billahi ci saayir ak ci baatin parce que sama xeex yàlla rek laa ci jublu yàlla kese laa ci gis gisuma ci keneen waruma nit yàlla kese wutuma ci xaalis gañewuma ci dara yàlla rek laa ci gañe mooy lépp lu may def yàlla laa ci xool sëriñ boobu doon wër fii foo sëriñ boobu ma saagoo ndeyam bu ma saagaa ndeyam ba léegi génnatul de temps amoon na fi média yi wër tiir rajo yi di du rek di dajale di fen taxaw ci télé man man maa taal sañu kër boobu ngeen ko gëj a dégg damoon na kaso sax de damoon na kaso mu ngi say <laughs> nag gisatu leen ko ci benn média <laughs> mi ngi ci mi ngi ci tolof tolof de waaw kay mi ngi ci tolof tolof de kii mu tëdd mooy ku mënoon sol ñetti abdu yu mënoon rek mënoon fet gisatu leen ko fii mooy kii yu mu tudd sant bi laa fàtte kii Dramé xaw ma lan Dramé sëñ mu safaa ana sëñ mu Dramé <laughs> sëñ Moustapha Dramé doo génn ba nga duulalee ca la yàlla tegee nattu ba léegi ba nga ma duulalee fii nii sos xaw ma ko leen di fenal muy jàll mais man ku ma fenal gis ko ku ma fenal nekk ci tolof tolof mu safaa Dramé kañ ngeen koo gëj a gis doo leen ko wëri <laughs> kan ngeen ko dégg sëñ sëñ Moustapha Dramé anamu <laughs> man yàlla laa dénk sama bopp yàlla kese laa dénk sama bopp ku ma duulal jalaal gis nga di nga gis jalaal junni sëriñ ak juróom-ñaar képp ku ma fi musa waxal dafa la rëbb dëmm wut nga sëriñ joxe sama tur ba léegi dara fatal ay ni mettiwu ma à part ak làmmiñ loolu moom topp na ma moom sëriñ boo wax danaa cat ak cat ak làmmiñ ko sonal mais ba léegi tëdduma ci lal am baaraam buy metti te billahi wallahi wa taalahi amul sénégalais bu ñu doon gën a marabute ku dul man sur le saint coran amul sénégalais bu ñu gën a marabute ren ji que man képp ku ma rëbb dëmm góor jigéen mag ndaw wëri nga sëriñ sëriñ rek lañ gëm nekk ci man rek dima sëriñtu façon mystique bu ne sànni nañ ma ko sa lu ne man mi maa ngi toog nii ci jàmm ak salaam yàlla moo may sàmmal boppam lu ñëw mu dóor mu naaw te ay doomu aadama yu ma xamul ñooy taxaw di ma ñaanal waaw ay doomu sëriñ mu euh, euh, lu ko mbiri na baay di ma jëlal kurus ñu wax musuma leen gis su ngoon ñu may woo di ma nemmeeku sëñ Xaadim Mbàkke Daaru Salaam mun lu ma gis ñañu tël seen course di ma ñaanal sëriñ mu euh, sëñ euh, doomu sa caatu sëriñ Saaliw sëriñ euh, tuuti waay kii Mbàkke waay sëñ Murtada Mbàkke doomu sëriñ Saaliw wax musuma leen gis ñoo jël seen kuréel dama ñaanal fàllu baay ba ca ndar ñoo jël seen kurus ay muqadamu baay ay doo ay sëtu Serigne ay partout Casamance fu ne ñoo jël seen kurus di ma ñaanal di ma gisal ay tolof tolof gàllankoor ay sëriñ yu toog tëju ci ay néeg di ma mystique Serigne Bassirou Serigne Bassirou euh, euh, Gueye Moustapha Diop ku ne ku nekk Serigne tu nga ma fii ay Serigne laa la wax ay Serigne ay ay ay ku ci nekk am nga quatre cinq Serigne ñu may mystique di dóor di def lu ne dara dara jotuma parce que alxuraan parce que yàlla te képp ku ma woo ci kilifa loolu nga may wax kuñ gisan dañ ma yow yow gars yi ñu ngi ci yow suba ngoon guddeeg bëccëg mais jàppal dara ma ne ah barke alxuraan dara du la ci dal yow lenn rek mooy sa kii mooy cat ak làmmiñ c'est vrai Sénégal tout le monde parle de moi tout le monde kër yeeg partout mbedd yeeg pop moolaa moolaa partout tout le parle de moi tout le loolu cat kenn mënu ci dara cat kenn mënu ko ki cat ak làmmiñ ana sëñ Moustapha Dramé den kañ ngeen ko gëj gis ngeen foog ni da ngeen may fenal nii ci sosal nii un combattant de Dieu ngeen koy sosal di ko fenal ci ay caaxaan nii nii nii ngeen génn ci loolu du munu yombee noonu ñëpp di ma sëriñtu te man gañewuma dara ci affaire yi bëgguma doon ministre bëgguma doon député bëgguma doon bëgguma doon dara di xeex comme comme un politicien jël ay dossiers yu doy waar téye ko xeex ko ba indi ko fii ma ko indi yenn sénégalais yu xam ne xamuñu dara ci li may xeex bëgg a ñëw jël ci li ma def bu bu ko utiliser ne bëgg ma ci fenal man ban sénégalais moo ma xam fii ban sénégalais man du ma tux du ma naan néew ma ci caga ji bëriwuma taxawaalu ku ma xam Kaolack nangaan benn buntu kër nga ma xamee kër ñoom kilifa man kan moom mu mën a xamal lu bon moo tax boo gisee ay nit taxaw di gis dañuy fenn kenn xamuluma